madam baxaw Diong ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay secrétaire général bu CNTS FC authentique yaay coordonnatrice itam bu CUCS. oui ñu ngi ci benn fan ci weeru mais occasion la ngir liggéeykat yi itam wara mën a dem euh, joxe si li nga xam ne moo di jëm seen doléance ci li nga xam ni itam moo jëm ci seen plateforme revendicative yi bari na mais déjà laata ñuy euh, dugg ci euh, revendication yi nan ngeen fas yéene célébrer li nga xam ni itam benn fan ci weeru mais bi. waaw maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di ma jox occasion sax ma wax suñu travailleurs yi. woo travailleurs yi nga xam ni dañu affilié ci CNTS FC authentique mhm. ak ñi nga xam ne dañu affilié ci cadre unitaire bi muy kii mhm. wan leen premier ne ñun dañoo fas ne def rassemblement muy dajaloo boo xam ni travailleurs yépp yi affilié ci ñun ñooy dajale ko fii ci seize rue Jules Ferry angle Mohamed cinq mhm. ci ci suñu travail bi la ñu ñëw dajale ko waxtaan ci suñu biir fexe ba lépp loo xam ni travailleurs yi bëgg nañ ko dégg ñëw déglu <laughs> mel ni euh, revendication yi bari na jafe-jafe yi bari na lan nga ñu mën a wax tey saa si tembe si jafe-jafe liggéeykat yi jafe-jafe liggéeykat yi bu ma ko doon tey di ko di ko lim du ma fi jóge ndax liggéeykat yi surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur privé bi jafe-jafe yi bare na ci ñoom lool xam nga ni liggéey pratiquement barewul liggéey bu amee aussi licenciement yi dafay taxaw ñu ngi licencier travailleurs yi benn par benn def leen aussi presque ay jaam di leen liggéey loolu loo xam ne ni fayuñu leen ko di leen def loolu loo xam ne amul contrat da ngay toog da ngay dem liggéeykat yi amuñu contrat amuñu CDD amuñu yi patron yi léegi lépp lu ñuy privilégié mooy prestataire dañ lay def prestataire loolu dafa jaaduwul teguñu ko fenn ba pare di aaye liggéeykat yi ñu dugg ci syndicat yi te loolu yaakaar naa ni convention bi nga xam ne moom laa lim léegi muy ay convention quatre vingt sept bu OIT ak convention quatre vingt dix huit ak bu cent trente cinq sax dafa dafa may liberté syndicale képp koo xam ne liggéeykat nga fu la neex nga dem fa nga syndico boo demee ci boo demee ci foofu liggéeykat yi secteur boo laal ma ngay metti boo demee secteur de l'hôtellerie gis nga dañuy dem restaurant hôtellerie ñu ngi na ñu convention muy commerce muy hôtellerie muy bâtiment seen convention booba suñuy suñuy suñuy bàyyi xëy na ci la ñuy soog a judd wala suñuy mag yi mille neuf cent cinquante cinq mille neuf cent cinquante six mille neuf cent cinquante sept cinquante huit xam nga ay même mille neuf cent quarante huit amoon na loolu dafa obsolète loolu dafa dafa di loo xam ne dañ ko war changé code du travail bii la ñu war ubbi changé ko fexe loo xamee ni lu yàq lu lu yàgg la woon rek ñu dindi ko beesal parce que dañu war seet ci fii ñu toll nii jamono bi vingtième siècle ñu nekk ci deux mille vingt quatre defe naa ne loolu yëpp loolu yëpp war nañ ci seetaat sëgg ci fexe ba code du travail bi te code du travail bu baax boo xamee ni liggéeykat bi employeur bi dina ci gis boppam. ba bëri na ci li nga xam ni itam moo jëm ci jafe-jafe yi wax nga ko itam jafe-jafe yi itam ba tey ma ngay wéy ci li nga xam ni itam moo jëm ci travailleurs rawatina ci collectivité territoriale yi. waaw dama ne la jafe-jafe yi dama lim secteur yëpp mais dama la limal ne la am na secteur yoo xam ne ci ko boo ci collectivité locale. metti na metti goo xam ne gis nga leen. deux ñu ngi grève ñu ngi grève pour cent vingt heures. loolu c'est très grave yàgg nañoo grève. mais jusqu'à présent ministre bu ñëw da nga leen di dicté doo régler dara alors ko seen fonction publique locale bu ñuy bu ñuy wax bi buñ ko réglé woon décret boo xam ne buñ ko appliqué woon dafa naa ne seen salaire yi dina yokk seen condition de vie yi dina yokk loo xam ne depuis lañ ko voté ba léegi nous sommes en deux mille vingt quatre. ñu leen di kayitloo di leen def loo ay ay di leen di kenn xamul di leen wax ni leen ñii nañu nañu nañu seet euh, nañu waxtaan seet ñan la ñu war a yokkal seen salaire ñan la ñu war a dugal fonction publique locale na loolu passé na parce que waxtaan nañ collectivité locale waxtaan na ko ba sonn woote nañ ci wax nañu mais ce nouveau gouvernement là daf koy war a jël maintenant di fi au sérieux ñu régler définitivement le problème de ces travailleurs des collectivités locales sonn nañu torop torop torop torop yërëm nañ leen torop boo ñëwee ci yeneen secteurs yi boo ci laal nee naa la ñun am nañu ay centaine de secteurs yoo xam ne boo ci laal dafay metti mënu fi toog fii di ko di ko fi lim. d'accord euh, leneen li itam bokk na ci tey yéen la ngeen di xaar yéen central syndicat yi la ngeen di xaar ci gouvernement bu yees bi ci jafe-jafe yi nga xam ni tey soulevé nga ko. waa gouvernement bu bees bi liñ ciy xaar dafa bëri moo di ñu régler définitivement sunu ay problème ndax gouvernement boo xam ne dañu ne dañuy. jub jubal jubanti jubal jubanti donc kuy kuy balaa balaa ngay jubanti da ngay jub d'abord donc nañu def loo xam ne lu jub la travailleurs yi mën ci gis seen bopp ñu jubanti aussi li nga xam ne dafa dëng te li dëng moo bare moo ëpp ndax weñ bu dëng pour nga mën ko jubbanti problème bu rëy la ñoom gouvernement bi dañu ils ont du pain sur la planche parce que travail euh, travailleurs yi seen problème yàgg na metti na salaire yi yokkuwul salaire yi baaxul panier ménagère bi dafa luur xam ngeen population yi sonn nañu lépp lañ yokk yokk nañ ceeb yokk dawlin yokk courant yokk ndox yokk tout donc ñoom dañu am lu rëy loo xam ne ni moom la ñu war a def sukkandiku d'abord ci li nga xam ne ni moom la population yi di souffrir travailleurs yi di ko souffrir ñu régler ko ñu jéem ci lu ñu mën ndax ñi fi jóge jéem nañu lu ñu mën ñoom it nañu yeggale gën a jéem pour ñun travailleurs ñu mën a noyyi souffler ndax suñu salaire yi mën a am au moins ñu am benn travail décent boo xam ne bu bu ëllëgee dinañ am dignité parce que travailleur bi amatul dignité amatul benn dignité. Euh, ci naka noone itam la dalal ki nga xam ni euh, moo di ñeenti centrale yu gën a mag yi dèjà waxtaan bi ci dundu gu cher gi la yow euh, tey da nga jàppoon ni dañ ko waroon yaatal ci ñëpp. waaw dañ ko waroon yaatal ndax bu fekkee ne ñoom dañoo waxtaan ci dund bi yow ni nga ko yëgee ci télé bi dégg ko moom noonu laa ko yëgee ñoom ba ñuy dem bu ñu leen woowee dañu waroon wax centrale yëpp bo au moins bu dee ñoom la ñu ni ñoom la ñuy recevoir ñu toog waxtaan kenn ku ci ne wax ci sa xalaat bu ñuy dem ñu yóbbaale xalaatu ñëpp mais seen xalaatu bopp la ñu yóbbu te li gouvernement bi war a def moo di ñu changer lii ñuy def centrale yi ñoo yem képp central yëpp dañu leen di dañu am seen récépissé légalement constitué bu ñuy woote nañu woo central yëpp central yu mën a toog ñu waxtaan wax wax wax benn voix ñu ñu am benn kaddu kaddu boobu boo bu ñu yëkkatee di dóorandoo di xàccandoo gouvernement bi ñu degg mais bu ñu divisé di ñu séparé musiba la musiba la ci travailleur bi parce que travailleur bi rek moo mooy en pâtir mais pas nous justement gis nañ xaajaloo euh, bi nga xam ni itam nemmeeku nañ ko ci syndicat yi euh, lu waral li ni mel ak nees mën a def tey ngeen bokk benn euh, jëmukaay. waaw dafa dafa jot nag ñu ñu ñu ànd ñun ñëpp nekk benn parce que xaajaloo bi daf ñuy yàqal di yàqal travailleur ndax bu ñu xaajaloo état bi da ciy da gën a kontaan wala patron bi gën ci kontaan mais bu ñu waxandoo woon benn baat di jëfandoo di jogandoo. bu boobaa ñun li ñu soxla dinañ ko am mais foog ñu booltoo foog ñu booltoo bañ division bi division bi baaxul day yàq day yàq day yàq central day yàq ànd parce que l'unité mooy force ni ko tubaab di waxee booloo mooy doole bu ñu booloowul du ñu am benn doole. Euh, ba tax na situation FGTS yitteel leen lool yéen itam euh, ni ko nekk ni ko nekk di dundee daanaka ku nekk yaa ngi taxaw nee maay secrétaire général FGTS ba li ni mel yitteel na la. waaye yitteel na ma kayit parce que seen séparation boobu daf ma yitteel ndax kenn ku ci nekk man xam naa la miin naa la xam naa ne man jóge man am naa exemple boobu ci man rek lañ ko war a seet mhm. man xëccoo naa feeg Cheikh Diop ñaata at presque ay juróom-ñaari at juróom-ñetti at ma ba ko ci tribunal ñuy demante tribunal dafa rafetul dañu war a toog autour d'une table waa si waxtaan ci seen biir ñun ñett ay camarades lañu bu ñu waxtaanee ci seen biir li nga xamee ni moo jaadu moom la moom la kayit yi wax muy texte yi réglement intérieur statut bi li mu wax wax dëgg yàlla ñu appliqué ko buñ ko appliqué jàmm ni ñooy mais di demante ay tribunal affaire bi dina traîner waat ay at te li nga li nga xam ne bëgg moom lañ ci soxla duñu ko gaaw a am ndax man exemple laa mhm. beneen bi mooy mënuñu wax premier mais te duñu fàttaliku euh, ñi nga xam ne daanaka bokk nañ ci ñi njëkk surtout euh, liggéeykat yi am nañ ci solo waaye itam ñi nga xam ni ñoom ñoo euh, sanc li nga xam ni itam mouvement syndical waaw waaw loolu ñu ñu jar a fàttaliku lañu booy fàttaliku da ngay fàttaliku doyen Maja Diop yal na ko yàlla yërëm te yeekuñu doyen Ismaïla Ismaïla Diagne doyen Omar Tall nga fàttaliku doyen Iba Ndiaye Diagne fàttaliku ci Sidiya Ndiaye mi fi jóge daaw daaw di leen ñaanal yàlla yërëm leen te yeekuñu ak travailleurs yi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ak barki démb ak ñi nekkoon di xeex ba léegi yàlla jël leen. bàyyi ñu fi di ñu dañ leen war a fàttaliku ñaanal leen yàlla yërëm leen te xara leen ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax madame Bakhaw Diong merci di fàttali ne yow yay secretaire général CNTS FC authentique yaay jiite itam euh, CUCS yaay coordonnatrice bu cadre bi ni mel ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ngi leen di